ay weer ñoo des ci jongante local yi commune bu ci nekk nag daal dinay door ay daje loolu nag ñi ko jiite di ñuy samp seen ndënd ci yile jongante ca commune bu Diass nag yenn ci ay candidat door seen daje ak askan wi bokk na ci jiital la COSEC di candidat ëllëg Sénégal du Mamadou Dione amalon ap visite de proximité Fofa ca Ndeng dal dinaay dajé ak askan wa rawatina ndaw bi lé gox gën leen a ci jongante yi di ñew waye tamit jox nop rek ñom ndaw gox boobule lolu nak mu nekk ap dox mbokk rek koye dina koy gëna a sax ak askan wa ba nopi daal di sax gëna duggal gox ci développement wu réew Sénégal rawatina ca commune bu gannaaw ba mu amalé di visite de proximité ba mon candidat ëlëk Sénégal dal dohanturek doxantu rek village bu Samkéji loolu nak bokk rek ci wëyel ab programme bu mu bëgg tek tekk nak mu daldi di sax ab meeting bu maga mak ci bilé gox mu daldi fay gis nak mobilisation bu maga mak ci ya ndaw ñi loolu sax daldi di tax ba xélam daldi di dal ci jogante local yi di ñëw. dama def appel à la jeunesse de Kursar li fi yëkëti pas-pas ci ndaw ñi digënté ci fi ba tëgg ndaw ñu dinañ jóg dans les 15 prochains jours du ma leen catu ndax du ma wax waaye di ngeen fi gis loo xamante ne bu ko gaa yi gisee balaa élection yi di ñëw gaa yi génn dëkk bi ndax la jeunesse de Koussa bi ñoo bëgg changement ñun ñu ñëw pour jàppale leen ci changement boobu mais pas-pas bi gis ci kanamu ndaw ñi pas-pas boobu bu ko gaa yi gisoon gaa yi dal bu yàgg moom sax mu jàpp ne rek ñi fi nekk dañoo dal di seetaan gox-goxaat yi wër commune bu Diass ba tax na sax mu jàpp nekk gisul benn coppite ci yile gox. seen bilan ci commune bi désastre total defaruñu benn village di waxal yàlla rek kuy waxal yàlla bi nga xam ne defaruñu benn na mu meloon na mel ba léegi ba léegi ba léegi. nga kandam benn yi la même chose ba léegi problème ndox day am nga dem Samkeñ meeting bobu nak mu meun ko duppé sax révolution manam coppite lolu daldi di tax ba mom mu daldi di ay points yu bëri bokku na ci ciowal suuf ci bilé commune waye tamit daldi di ñaax rek ndaw askan wa ci ñu gëna bolo ba nopi rek daldi di app say ngir ñu mëna am ndam lu rëy ci bilé jonganté maire Diass warul maye suuf comme ci comme Olivier Deme. yàlla xam na ne meeru Diass amul sañ-sañu mayee suuf suuf buñ ko toogoon ba dagg ko sax dafa war a am lu ñu tuddee une commission d'attribution commission d'attribution bi li loi bi wax mooy daf chef de village ca la bokk waaye commune bi de domañal rek ay dégg bañ nañ sax ba la ñuy tëb turu commission bi dañ naan domañal domañal domañal domañal mooy la dafa commission domañal te waaye <laughs> ah, domañal domañal domañal dama ñaan délibération dama ñaan délibération mutation dama ñaan délibération mutation mutation délibération dama ñaan yooyu la de di leen wax ne incha allah le 23 janvier 2022 gars yi danañ appliqué gars yi danañ ci jiw léegi kay lan la ñuy wut léegi et là dama bëgg jeunesse su Saafara jeunesse su commune ñu xam lan na ñu bëgg bëgguñu victoire bu ndaw dama koy wax dama bëgg victoire bu mag a mag a mag xam nga lu ndax victoire bu mag boobu même ñun ñi avertissement lay doon ci ñun ndax boo leen raxasee gaa ba mu set wecc ñun ñii waaj toog dinañu gën a ragal gën a xam ne suñu mission mooy liggéey ndax bu ñu liggéeyul juróomi at yi ci kanam bu la neexee ngeen raxas ba tax na il faut ngeen raxas gaañ raxas buy fokk ndab laa wax de ah est-ce xam ngeen raxas buy fokk ndab mu moom mu lañ koy raxas yi daal di door seeni ndaje ak askan wi loolu nag bokk na rek ci waajal la jogante local yi di ñëw ñu fas yéene ko amal sax ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022